yéen suñu mbokku taskatu xebaar yi ngeen jot ñu nuyoo boobu nga xam ni ëmb na jàmm ëmb na yërmande ëmb na barke ngeen jot ñu ko suñu mbokku senegal yëpp ak suñu mbokku àddina bi yépp ñi ñu bokkal diine ak ñi ñu bokkalul diine ñi ñu bokkal tariixa ñi ñu bokkalul tarixa ñiy der bu ñuul ak der bu weex ak ñépp rekk donc nuyoo boobu la bëgg njëkk a yëkkati bu nuyoo bi jàllee may balu àq ñëpp di baal àq ñëpp ci bisu korité bu tedd bii di ñaan suñu boroom li mu ñu dig lépp ci weeru koor te mooy njéggal yërmande ak goreel suñu yaram ci safara mu boole ñu ko defal ñun ñépp ba boole ci sax ñi nga xam ni wooruñu ngeen yu bari yoo xam ni ak njaween yi dañoo euh, ragal koor dañoo ragal xiif yàlla nañu tàbbi ci njéggal loolu ak yërmande boobu ak goreel suñu yaram safara ma bëgga yëkkati rekk tuuti kàddu dafa am benn kilifa gu mag a mag a mag gu jege président de la république lool seet ma ne ma ah vraiment jàmm daal moo war a am bu ma sañoon mu ne ma président yónni wu ma nag xam nga noonu la ñuy waxee affaire yi mu ne ma président yónni wu man maa jël sama initiative pour seet si la pour jàmm ak dal am ci réew mi daal ma bëgg nga waxtaan ak président te da nga ne yow dootoo toogate ak moom puisque kàddoom wérul doo wax ak moom lu mu woote ci dialogue nga bañ te il faut ngeen wax ndax yéen a bokk Sénégal ma ne ko ñoo ngi wax maa ngi wax muy dégg mu ngi wax may dégg <laughs> loolu doy na sëkk jarul gise jarul dugg ci néeg jarul dugg ci ruq ma bëgg laa yóbbante nag ci moom pour nga wax ak moom ne ko la ma ko waxoon ca njëlbéenu bi mu toogee nekk président de la république mu ne ma grand frère booba xamoon na ni may magam mu ne ma grand frère ñun ñaar ñii ñëpp amoon nañu droit yaakaar bu góor gi wàdd pare ñu remplacer ko surtout yow mu nekkoon taawu kër gi wante yàlla dogal na man may président sénégalais yi man lañu ñu ma ne ko ci lu wér mu ne ma ma bëgg nag nga ñëw dugg ci gouvernement bi ñu ànd liggéey et cetera ma ne ko loolu moom mënta nekk mën naa laa yebal ay nit wante du ma dugg ci sa gouvernement te yow nag bu la kenn gëmloo ni dama laa xeeb moo tax du ma dugg sa gouvernement wala dama laa yilifoon nanguwuma nga yilif ma déedéet ma ne ko li ma jàngate ci sama diggante ak Ablaye wadd ak fi ma jaar ak moom moo tax li ma dese ci sama dunduk politique dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo lu ma ci yor rek lu ma nit ñi di fal lay doon ma ne ko lii rek la mais bu la nit ñi gëmloo nii way dama laa xeeb et cetera c'est pas vrai yàlla dogal na comme tu l'as dit sénégalais yi voté nañu nangu naa ko yow yaay président de la république mais gëm ko yow ci sa bopp. parce que bu fekkente ne fu ñu la fekk ngay niitu naan maay président gëmagoo ko voilà ma ne ko la ma ko waxoon mooy na jàmmoo ak nit ñi bàyyi ayoo ak nit ñi na jàmmoo ak nit ñi. dooley askan wi ñu ko dénk na ko bàyyee xeexe ak nit ñi bu ko defee rekk ñu juboo ma ne ko li ma bëgg mu jiital ko ci mooy na jàmmoo ak baayam président Abdoulaye wadd ma ne ko nan la koy defee Abdoulaye Wade bari na njaboot ci Sénégal ak ci afrig ak ci àddina bi wante benn doom bu góor bu bàyyi ci moom rek la am ci lu ñu xam muy Karim Wade ma ne ko du mën a juboo ak moom tant que réglé wul problème mu exilu Karim Wade parce que ku nekk xam na ne mag bu tolloo fenn fi njabootam lay xalaat nan la leen di bàyyee ginnaaw donc bu fekkente ne xelam dalul ci loolu jàmm du mën a am léegi nag ma ne ko am na proposition bu ma ko bëgg a defal mooy ci biir njaboot gi Ablaye Wade njaboote ci wàllu politique jur na ci président de la république mooy moom Macky Sall jur na ci ay ancien premier ministre ci laa bokk jur na ci ay médiateur de la république Serigne Diop suñu mag ñun ñëpp ci la bokk Alioune Badara Cissé actuel médiateur ci la bokk ma ne ko kon léegi nañu seet ci njaboot googu ñu tànn d'abord ñi ci nekk ay médiateur muy Serigne Diop ancien médiateur di professeur de droit constitutionnel exceptionnel bu àddina bi yëpp wekk ci xam-xamu droit ak yoon Alioune Badara Cissé mi nekk médiateur ci njabootu Ablaye Wade la bokk ñoom ñaar nañu ànd dem seeti ko moom président de la république mi nga xam ni moo jiite état bi waxtaan ak moom ne ko waaw léegi li dox sa diggante ak Ablaye Wade ak Karim Wade ñaata la justice décidé na ba pare nee na ñu ngi topp Karim Wade nangami milliard lan nga ci mën a bàyyi yow ci sa sañ-sañ lan la la sa sañ-sañ may nga bàyyi ko ci bor boobu bu ko waxee ba pare ba ñu ne lii moom mënu mënuñu koo bàyyi lii justice daf koo laaj ñëpp a ko war a fay bu boobaa deuxième proposition bi may def mooy ñi nga xam ni ñëpp ci Sénégal mus nañoo jot teraanga ci Ablaye Wade nañu làmb seen poos cotiser ñu fay ko nañu làmb seen poos tàmbalee ci man tàmbalee ci moom Macky Sall moo taxaw fii wax ne Ablaye Wade may na ko juróom-ñetti milliards moo ko wax Ablaye Wade weddi na ko mais moom yi wax na lool xawma ma mat na juróom-ñetti milliards xaw ma mais yàgg naa lekk teraangay Ablaye Wade hmm. na làmb ci poosam dugal ci bor bi ma làmb ñeneen ñëpp làmb sénégalais yëpp làmb taalibe murit yi làmb taalibe tijaan yi làmb catholique yi làmb ku ci ne jot nga teraangay Ablaye Wade bu ñu làmbee fay bor bi loola féete ginnaaw deuxième contentieux bi mooy Khalifa Sall mi nekk ci kaso bi tey waroon a jullee këram tey puisque mbir moomu nan la demee li mu toppee xalifa sal décret bi changé ni ñu war a yore caisse d'avance sama gouvernement man Idrissa Seck moo ko changé ak ministre Ablaye Diop yàlla dafa dogal bi ñu waree signer décret bi maa ko waroon a signer Macky Sall moo nekkoon sama intérimaire moo ko signer moo signé décret bi wax ni caisse d'avance léegi règle yu bees yi lii la règle yu bees yooyu janvier 2004 la waroon a tàmbalee dox ma jóge ci gouvernement bi ñu jaxase ma ak Ablaye Wade kan moo ma remplacé ah Macky Sall moo ma remplacé te moo signé décret bi wax règle yu bees yi nekk na fi premier ministre nekk na fi président assemblée nationale nekk na fi président de la république waaw lu tax waxul woon ñu sàmm règle yu bees yi da ko fa ne ñukk ñuy doxal ca règle yu màgget ya mu toog ba 2017 mu jàpp xalifa Sall ne ko règle yu bees yi nga waroon a doxale waaw loolu nan la tudd ñun ñoo defar règle yu bees yi teg ko moom moo ma remplacé nekk premier ministre nekk président assemblée nationale nekk président de la république bàyyi fa règle yu bees yi ñuy doxal ca règle yu màgget ya moom ci boppam mu ci jariñu xëy bis ne léegi règle yu bees yi moom ngeen waroon a doxal daal di jàpp waa ji tëj loolu quand mën na ci dara que bu fekkente ne daf ni association de malfaiteurs la moom mooy président malfaiteurs yi puisque moo fi bàyyi règle yu bees yi puisque mënoon naa wax ministre des finances am wax waa trésor ne leen règle yu bees yi kat bu leen alimenté ti benn kees bu bu bu dëppoowul ak moom mais defu ko lii rek laa koy reproché ma ne kilifa ga boo demee nga wax ko loolu ñaari dossier yi na ko réglé na réglé digganteem ak Ablaye Wade na réglé digganteem ak xalifa Sall na leen génne ñoom ñaar. ndaje boobu kañ la amoon yàgg defal ndànk rek. bi ma waxee loolu ba pare ma teg ca ne yow bi ngay ñëw di ma seet si mbaa waxtaan nga ci ak Marème fay Sall parce que Marème fay Sall moo ne dossier yi yi jafe te tàng moom moo koy régler ndax waa ji àttanu ko moo ko wax sénégalais yëpp di dégg ma ne ko kon nag bala ngaa dox sa jéego yi demal wax ak Marème puisque bu ci mareem àndul Macky du ko def ma ne ko nag bi ma paree dama ciy teg beneen yóbbante ma ne ko maa ngi koy ñaanal yàlla boo ko nettalee lii ma wax ba pare mu jëfe ko te bañ a def la Iblis defoon sama nijaay Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum Al daf maa nettali ne Iblis daa musa seeti yonent yàlla muusa dafa naa Moussa la bu ma juumul ne ko waay yéen. bi ma xuloog yàlla ba léegi yéen yonent yi ngeen di wàcc rek di wax jàmm di woote jàmm te kenn musu cee dox kenn musu cee dox jéego pour jubale ma ak yàlla te pourtant yéen jàmm rek ngeen di wax Moussa ne ko mais wax nga dëgg ah mu ne ko ah la kon dinaar ci dox jéego dem ci yàlla ne ko mais ibliis moom daf maa seet si nee na bi ngeen xuloo ba léegi kenn doxul seen diggante yàlla ne ko mais loolu amul problème man leen rek lañ jote ah dama ko ne woon su jootalal aadama mu bañ c'est vrai que aadama nekkatu fi yàgg na bi mu fi jógee wante demal nga ni ko bu demee ca bàmmeelu aadama ba su joot rek lu mu fa fekk baax na bu bàmmeel ba raafeeg lépp na su joot rek ma baal ko lépp ñu juboo Moussa kontaan defe ni mission réglé na mu ñëw ci Iblis ne ko sa waay daal kilifa gi nee na jotewu leen dara jàppalu la dara jëye yi nga def yëpp mën na la ko baal wante nag la mu la santoon nga bañ def ko rek ngeen juboo nee na Iblis jóg faxasu ne ko yàlla bëggul ñu juboo waay <laughs> kii nga xam ni ba mu nekkee bees ah mu koy soog a tabax ne ma sujootal ma bañ mu xaar ba mu fënax mu naa ma sujootal maa ngi dem waay <laughs> ma ne ko yàlla bu ko loolu dal na def jàmm bu jàmmoo ak nit ñi nit ñi jàmmoo ak moom il ne jamais trop tard pour bien faire j'attends de lui un sursaut de sagesse vous savez Ablaye Wade bi muy soog a toog dama dem seeti ko ma ne ko gis nga nit ñi yàlla yëkkati ñëpp ci jéggale la leen jaarale mande laa ngi nii instituteur la woon ñu teg ko li ñu ko teg lépp dafa jéggale rek nekk un universel bu sojee sax waa àddina bépp di jooy ak dem ci église yeeg jullit yi di ñaan ñëpp ko doon ñaanal président États-Unis dem na états tar del avion pour nuyu Mandela photo ak moom rek donc jéggale dafa baax Ablaye Wade ne ma maa ngi nii damay dem Touba bu ma fa jógee damay jaar Kébémer ziyaare bàmmeel bu ma fa jógee dinaa jaar ci yaayu ab du Diouf loolu la def après mu ñëw ne ma euh, Bruno na defar avion bi ab du juuf laay yebal keer ca ndaje chef d'état ya comme ça mu am occasion tàggatoo ak ay nawleem bu paree na ko avion bi yóbbu fu mu bëgg waaw lii mooy teraanga lii la Sénégal xam mais yow kii defal la lépp nga ñëw sànni fële xal jiiñ wax yu ñaaw mais mm, bëgg na dangay am jàmm doo am jàmm. il faut que Macky Sall sache que bu deful lii ma ko wax du am jàmm du ko am tey du ko am ëllëg. est-ce que moment s'y prête. voilà le moment s'y prête korité lañ ne. na balu ji àq rek bu ñëwee balu àq. Ablaye Wade da koy baal. yow est-ce que nit mën na laa wax ce matin là. ñëw na la bal ma àq nga ne ko balu ma la. est-ce que sañ nga ko. président non est-ce que sañ nga ko. Euh, maintenant bàyyil ma terminer nga soog a poser. li ma ci bëgg a teg ma ne ma ma tooñ waa ji ma ne ko léegi boo demee nga ne ko deuxième proposition bi xam naa ni bu ma ko ko defalee du ko nangu parce que dama bëggoon mu tas APR ñëw dugg réew mi parce que réew mi Sénégal yëpp la ëmb <laughs> comme du def loolu na tas Bennoo Bokk Yaakaar opposition bi tas seen front ñu defar Bennoo Bokk Sénégal au moins pour ñaari weer kenn bañ a sol euh, maron beige kenn bañ a sol orange kenn bañ a sol wert ñun ñëpp ñu sol mayo national. yow ci ngay bokk ci laay bokk man am naa maillot ba pare. <laughs> pour pour gunge lion yi xanaa loolu ñëpp a ko bokk catholique yi danañ ñaanal lion yi. jullit yi dana ñaana lion yi tijaan yi dana ñaanal lion yi xaadir yi dana ñaana lion yi séeréer yi joolaa libaane yi nga xam ni yii sax euh, ay sénégalais lañu d'origine libanaise wala tubaab yi nga xam ne dañoo jël nationalité sénégalaise di nga ci gis ñoo xam ni maillot Sénégal la ñuy sol di di jubilé ci Champs-Élysées ba ñu dóoree France ci Champs-Élysées lañ dem sol seeni maillot waaw loolu nañ ko def au moins bu dee dëgg la bu dee woote jàmm jeeg dialogue beeg nañ wax pétrole beeg bu ko gëmee na def loolu na tas yëpp moom na ko jiite. na doon na doon président bi man ma doon militant simple ci Benno Bokk Sénégal ñu seet ba xam ndax Sénégal dina avancer wala du avancé bu ñu ci paree nag mu jubóog ñëpp na may ñëpp ñu présenter candidat na Karim nekk candidat na Khalifa Sall nekk candidat ma nekk candidat moom mu nekk candidat ku jiite sénégalais yi ñoo koy tànn yàllaa koy dogal comme ça ku jiite. jàmmoo ak ñi ci des comme ni mu ko defee woon moom bi muy soog a toog mais bu la nit waxee lu la naqari nga yebal sa directeur de cabinet mu naan ko mott mbaam muut walla xaw ma affaire bêtise yooyu c'est pas ça un leader il doit avoir une poitrine dilatée une poitrine large c'est ça que Wade avait c'est ça qui l'a sauvé voilà c'est ça mon message